deuxième vague bi de moom daa mel ni sax moom ñoo ngi ci parce que ni ma déggee ministre bi mu waxee ko daf mel ni vague moom ñoo ngi ci daal xanaa kay li ñaan rek borom daal mu bañ a mel ni comme li passé parce que li ñu dund li passé moom bu ko bëggee dundaat dina metti loolu ba jaaxal. buñ bu ñu respecté moom euh, masque moom dina baax quoi waaw mesure barrière yi moo gën quoi moo gën maanaam ñuy defaat ay ay confinement total quoi parce que boo maanaam bu ko defee parce que parce que gis nañ conséquence bi nga xamante ne si maanaam jàlloon na première première vague bu quoi moo tax. dafa métti woon gars yi dund na lu tara tara loo xamante ne si mooy loolu noonu. comprendre nga waaw man moom bu ma soxee moom nañu respecté mesures barrières ñuy takk masque waaw. deuxième vague de doom bu ma bu ma ko déggee sax ñu koy waxtaanee sama fi day dem ndax xam nga ne jamono dafa toll fi mu ne nii foo xamante ne fi ñu jógee dafa euh, euh, ragalloo ku nekk ndax toll nañ fi jamono yoo xamante ni ba ñu bëgg nañoo génn liggéey te mënuñu ko. nu génn bëgg a dox ak bokk te mënunoo dox ak bokk te xam nga ne jaboot moom surtout bawol bal ko xaj xañ dem ak dikk ak yëngu da koy daal di bëgg a jaaxal réew mi ne woon tekk nag te nga xam ne njël njëlal baadool la sax léegi ci ci ci lijjanti la nekk nekkatu ci ci waar moo tax na nag deuxième vague lépp lu koy indi rek danoo war a xeex moom ba ba du fi jege. masque daal ñëpp na ko respecté. Mm-hmm. respecté maanaam dëkk bi. ñan ñu jàppalante. Mm-hmm. parce que ñoo maanaam ñoo mën a jàppalante ci seen mm-hmm. ku nekk maanaam soo solo say masque di nga mën a aar sa mais tey soo duggee ci tataate yi wala si ni ci carte yi maanaam nga solu masque sa morom solu masque mm-hmm. moom noonu moom yow muccoo ci feebar gi mm-hmm. te feebar ñu ñëpp ñoo ci war a mucc mbas mii spécial benn mbugal la ndax li muy rey ci àdduna bari na kon lan moo waroon ci ñun première chose mooy ñu dellu ci yàlla di jéggalu yàlla tuub beneen bi ci des nga xam ne suñuy njiit ñoo ñu ko digal te ñoom ay responsabilité lañ ñu topp ko ndax borom bi gannaaw bu mu wax ne yaa ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula na ngeen yéen ñi nga xam ne gém ngeen yàlla gannaaw na ngeen topp yàlla topp yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam te ngeen topp ulul amri te mooy njiit ñi soo yoree jikoy Baay Faal moom jikoy Baay Faal soo ko yoree waaw waaw ak lu ñu mënti teg sa kaw di nga ko dékku waaw li mu bëgg nag ñu dégg ko mooy ñu takk masque yi respecté ko si boppam bu ñu ko defee rek macha allah deuxième vague nag wax dëgg yàlla ñun ñaanuñu ko waaw lu nu ko fangal daal la ñuy ñaan ndax ay jaboot lanu te dañuy liggéey te première vague bi sax metti na metti goo xam ne sunu lépp a taxawoon xale yi jàngunu liggéey bi taxaw na te jamono bi metti na kon daal li nuy ñaan mooy deuxième vague moom yàlla nañu ko yàlla fangal wax dëgg yàlla bëgguñu ko sax dégg. nañu fas yéene euh, def li nga xam ne mooy euh, lii muy masque bi ñu koy ñu koy ñu koy kii te nee nañ moo lay ar te xanaa yàlla su la waree jël masque ñàkk masque la yemale nañuy raxasu di jàpp saa su nekk ànd ak set ndax nit ki sooy ànd ak set lu bëri dalay daw kon loolu laay conseil nit ñu and ak set. te xam ne feebar moom mi ngi fi moom waaw loolu moom il faut ñu gëm ne maanaam di bañ a yàq xel nit ñu naa leen feebar bi amul non am na mi ngi fi loolu moom ku loo ko waxul tam day wax lu neex mais feebar bi moom am na moom macha allah xanaa kenn yàlla musal ni ci rek waaw fexe ba gaaw ko fi jëlee ndax moom day yàq koom-koom. yàq gàllankoor dem ak dikk lépp lay gàllankoor daanaka lépp lay laal. moom bu ma soñoon moom nañu nañu respecté masque yi rek waaw buñ ko respecté moom dina nekk loo xamante du euh, maanaam luy baax suñu la mais bu fekkee de respecté ko bu état bu état kiiwaatee rek moom ñun ñun ñi ñooy gën a sonn waaw ñun ñi ñooy gën a sonn loolu laay loolu euh, askan wi.